5M TV Sénégal. mbokk yi si 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm mel ni taalibe sëñ Ousmane Sonko yaa ngi génn daal di attaque ki nga xam daal moo di Pape Djibril nga xam ne dangay démb daal bi eh, génn ci assemblée nationale eh, wax ni daal ñi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée bi nekk fa di yàqate loolu jaaduwut loolu nag bu ko waxee nag ñu bëri ci ñi nga xam ne daal ñoo ànd Ousmane Sonko génn di ko wax daal ni yow mi li ngay wax eh, maam teewoo ko fenn Macky Sall nga àndal ak yooyu maam di ko bu baax a baax a baax gis na tamit ki nga xam ne moo di Mimi Touré maanaam am na ñoo xam ne eh, ci taalib Ousmane koy eh, ñu ngi koy ñaawal maanaam di ko sànni xeer di ko wax ne daal Macky Sall sax yow xamagoo sax li lay dal yooyu lépp nag nekk loo xam ne daal eh, ni ngi démb daal mi ngi xaw ak tey jii voilà ku mbokk yi jox leen di daje beneen incha allah ci 5 Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M Sénégal.